baabun lii bunt la fil islaami ci lislaam islaamukum seen islaam yaa ayyuha shiqaaru ya ndaw ñi li man ñeel sunu borom mi nga xam ne laxoo ñeel na ko adduniyaa àdduna wa tilka daaru ak góogale kër sikrullaahi mooy tudd yàlla wa ak julli wa siyaam ak koor xajjun aj wa ak génnee asaka kulus yi képp ci yuram def na ko sàkk xattaman ci war kon eh, ginnaaw bi ñu àndoon ak yéen ci tasawudu siqaar yàlla def jeexaloon nañ bunt bu njëkk bi bi jëmoon ci wàllu pas-pas yi muy wàllu tawxiid jàngoon nañ ca njëlbeen ga ne eh, diine ji ñetti xaaj la muy imaan islaam ihsaan jàngoon nañ nañu ne imaan juróom-benn xaaj la muy imaanu billaahi wa malaayikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aaxir wal xadar tey nag ñu ñëw ci bunt bu am solo muy buntub lislaam ndax téere bi it ni ko sëriñ bi taalifee ci addisub Seydina Jibril boobu ñu tuddee addis addisub Seydina Umar boobu ñu tuddee ñu tuddee addisu Jibril bi sallallahu alayhi wa sallam la ko ci waxoon bi ko Jibril laajee dana ko an tumina billahi an tashhada an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima salaat wa tuuti saka wa taxujja wa taxtamir wa taxtasila min al janaaba wa tutimmal wudu kon nag ñi ngi nekk ci buntu boobu nga xam ne lislaam juróomi ponk yooyu mu ko tënkee la sëriñ bi wax daan ne seen lislaam yéen ndaw ñi mooy eh, ba ci njëkk mooy zikrullah mooy sahaada an laa ilaaha illallaah wa muhammadu rasulullah mooy bu njëkk bi day se baat boo xam ne wax gi mënta ñàkk ci ab jullit ci ab dundam ñaareel ba mooy eh, julli salaat ñetteel ba nag mooy génnee asaka ci niñ koy toftalee juróomeel ba ñeenteel ba mooy e, woor juróomeel ba mooy génnee asaka mu ne yii nag benn bu ci nekk lu ñuy sàkk lu ci ab jullit lu munta ñàkk moo tax benn bu ci nekk sëriñ bi beral na ko ab buntam détaillé ko wax ay farataam ak ay sunnaam bi ci njëkk mi zikrullaahi nag mu beral ko ab buntam daane faslun aji teqal fi zikri ci zikkar li ñuy tuddee tudd turu yàlla walaf su baatub laa maanaam ci firi laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu te mu yeyoo ko illa allaahu ndara yàlla muhammadun muhammad arsalahu yónni na ko al ilaahu buur ba salla yàlla na julli allaahu yàlla asami yàlla ma di aji dégg xale yi ci moom yonente ba bi salaamin julli gu ànd kook sëlmal fi jamii shaabihi ci mboolem ay saxaabaam mu ne baatub laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi baatub laa ilaha illa allah muhammadun googu nee na afdaluma mooy ngën ji xam ne nataxoxoo tudd na ko man ka nga xam ne yaskuru dana sikar fa kullu man képp koo xam ne ankaruhoo weddina baat boobu di laa ilaha illa allah muhammadun fa yaqsaru kook kook dana perte wa man ku saxoo nag zikrahoo di ko tudd mooy di ko zikar mustaadira di aji sàkkoo teewli ko ci xolam fa raabiun aju tonawu la mooy maanaam kuy bénéfice kuy bénéfice wu la wala yulaaqi te déet muy dajee kadara bu mu ci nax-naxi mu ne ba njëkk ci ponki lislaam yi mooy sikar tudd tur yàlla tudd tur yàlla tudd sikk sikkur gi ñu tëddee tuddi tudd yàlla ak farata gi muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ne boobu baat la boo xam ne képp koo xam ne wax na ko rek eh, ku nar a texe lay doon moo tax mu ne mooy ngën ji lu làmmiñ di wax képp koo xam ne weddi na ko it ku perte lay doon koo xam ne saxoo na nag di def sikkur di def laa ilaha illallah di ko teewlu ci xolam mu ne kooku ëllëg faaw mu mu bénéfice te nax-nax yi bu mu mën di doon du ca daje ak moom yonent bi moo ne man qaala laa ilaha illallah mustahdiran fi xalbihi daxalal janna muxlisan fi xalbihi daxalal janna képp koo xam ne wax na laa ilaha illallah di ko teewlu ci xolam nee na kooku moom kuy tàbbi àjjana lay doon ñaareelu ponk bi nag mu dugg si ci muy eh, julli ci niñ ko taftalee mu ne faslun ay faslun lii ab dog la fii fi salawaati ci julli ya alxamsa ya di juróom mu ne kon bunt bi day ñëw ci tudd julli julli juróom waxalam xamal ne bi anna salawaatil xamsa naka julli juróom ya faridatun farata la xataxan ci lu dog wuxiita yàlla na fega leef la labsan lënt farata la bi zikri ca tudd ga mooy tudd ko alxuraan tudd wa sunnati ak sunna ci li ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale wala ijmaa ak dajaloog boroom xam-xam yi wa man yakun ku dana nekk nag alamtinaay ci di terewu min ci moom julli ya jaxdan ngir jaxdan ngir weddi lahaa ñeel julli yi fa humum kal naka kutub bi kal murtadi naka kutub bi yustaraa yustataabu def na ko tuubloo fil xukmi ci àttab lislaam jiimal addi li ñett fen yetub nem tuub na yutrak bàyyeef ko wi nam yetub nem tuubut taxtuluhu dana ko rey sariatu nabi saria yonente bi mooy yoonu lu yonente bi bi sayfi jaasi lislaam salla yal na yàlla julli allahu yàlla alayhi ci moom yonente bi bi salaamin ci julli gu ànd ak salmal fi ali ci ñoo ñoom wasay bi ak saxaaba alxukaam yi di mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli ci moom daan ne mu ne na nga xam ne julli juróom farata la ñàkk yàlla na la suñ boroom fegal am lënt mooy yàlla bu dara lënt ci lii farata ci li ñuy tudde euh, dalil yi ñuy tegtaloo ci diine mu ne dalil yu njëkk yi ci usulul fiq yépp wane na ne faratala faratala farata la ju alquran tudd aqimu salaata waatu sàkka farata ci sunna and nañ fi léegi addis addis jibril boobu farata la it ci lu boroom xam-xam yi dajaloo wa tuqiima salaat mooy sunna bi boroom xam-xam yi dëppoo ci benn mbir moo qiyaas lii la ñuy tuddee ñeenti dalil yi ci usulul fiq yi nga xam ne ci lañ ci lañ di faral di dellu yooyu yëpp nag nee na boo ci dellu rek da nga xam ne alquran sunna la ca euh, farata la ca ci dalil yooyu ñuy tegtal yi ñuy tegtaloo ci lislaam tegtal yooyu yëpp wane nañ ne julli farata la mu ci nag daan ki nga xam ne nag dafa bañ ne du ko def bu doon ab jullitit dañ koy jàppee ne moom daal léegi daa bi dañ koy may sens ñetti fan ngir mu tuub bu tuubee ci ñett fan yooyu ñu bàyyi ko bu tuubul ci ñetti fan yooyu nag nee na sariya raylu ko ci jaasil lislaam dafa baaxoo nag bu tuddee yonente bi moom sëriñ bi rek day daal di julli ci moom moo tax mu julli ci moom ak saxaabaam muy ñi daan ànd ak moom ñooñu ak i ay waa këram ay ñañam mu daal di julli ci ñoom ba pare mu ne koo ko bu ñu ko rayee ba noppi nag wala sa yux salu deefu ko sàng wala sa yukk fanu deefu ko sàng wala salaatu de jullee it laxoo di ko ñeel lees yu dafa nu deefu ko suulit fil muslimiina ci jullit ña waaye nag fal imaamu imaam yursilu yursilu dana yónnee sax san jëmm joo xam ne yuwaarihu dana ko suturaal wala yustaqbul defa ko jubaleet baytul ali néegub aji kawe ga muy kaaba ga bii ci moom omaalu yaxsulu alal ji mu amoon it yu jaalu def na ko def fii bayti maalil muslimiina ci néegu àlli jullit ñi mu ne kooku it bu ñu ko reyee ci noonu comme dañ koo reyee rey atteb ku génn ci diina ji moo tax li ñuy defal ab jullit moom kenn du ko defal ndax jàppeetuñ ko ab jullit mooy duñ ko sàng nii ñu sàngi jullit ñeek di ko sànge noonu wala ñu koy suul ci bàmmeelu jullit yi imaam nag dana yónnee comme doomu aadama la ormay doomu aadama ji ñu war a joxe ci moom mooy fexe bañ toppatoo ko denc ko imaam dana yónnee wala kilifa ak diine yi dëkk ba mu dëkkoon dana yónnee nag ko taxawu bañ denc ko waaye bu ñu koy denc duñu ko jubale xibla ndax euh, comme daa weddi woon yim ci loolu moo tax euh, alal jim amoo amoo it amoon it bu fekkee ay doomam dañu nekk ay jullit ak doonante lu mën a am ci diggante jullit ak yeefar moo tax ay doon ay doomam duñ ko mën a doon kon alal jim amoon dañ koy jox trésoru jullit ñi mu garde ko waman aqarra ku saxal na bil wujjee bi ci waruk julli wam tanaa te mu terewu min fii di haa ci defam wala la te di ko ñeel xusrun gànt loo xam ne yaqa gànt loolu dana tàbbi fay na naka moom mu àqarun ku yeex a rey lay doon xataa yi ba mu dikkee waxtu salaati waxtu julli wa li xaboolul ngir ak ya nangu goo xam ne maanaam mën a accepté goo xam ne xadru ji yaakaareef na ko ca moom su ma ta yomaru bihaa topp ñu koy digal nag muy julli aw tabqa ba muy des mais na daroor yi ca daroor yi waxtu wa rakkaxatan ab rakka wa yabqaa bu demee ba des nag min xayri ma fatiha lu dul lu mën a jàngi fatiha wala al i'tidaal du càggeen lu mën a taxaw yemo loolu lépp it li aj li saw li aj li saw ni dammi yi ngir ñongal dareetam la woon bilaa nakkaal ci lu ñeñ ñi fen abaa neem bañ na nag xatalahoo mu rey ko sul amri boroom ndigal la bi seef fi fi ci jaasil islaam rey gi it rey ko xaddan rey gëtañ lay doon doon a xattali kufri ci lu nudul rey bi yeefar kenn du ko rey ni ñuy reyee yeefar mu indiwaat ñaareelu masala beneen masala bi mooy ki nga xam ne moom saxal na ne julli moom am na moom d'accord ne julli am na waaye dafa bañ ne du julli ci amul lenn ngànt lu mu joxe lu ko tee julli kooku du ñu tëb tëb rek rey ko ca saasa waaye dañuy xaar waxtu julli jot ñu koy julliloo naan ko jullil ngir yaakaar ne yooyu yëpp buñ ko ko waxee dana accepté léeg-léegi sax ñu xaw koo xuppaale bu laajee sax xaw ko cawaale def ko luy tax daal mu. mu julli yëpp dañ ko koy def bu demee ba desatut ci daroor yi muxtaar mi jeex na daroor yi ba dem na ba ba desatut loo xam ne mën na caa taxaw sax jàng fatiha waaw kay ki ñu joxoon autorisation rey gi nag kooku doog koo tàmbalee rey bala koy rey nag dañ koy def yu baree bari yuy tax mu xam ne ñii caaxaanuñ bu demee ba yooyu yëpp yëpp yëpp jeex nag ba ki nga xam ne moom lañ joxoon autorisation ray bi mu tàmbale koo rey mu bëgg tàmbalee rëccu nag mu bëgg a tàmbalee deltu ginnaaw nag ah bu boobaa nag duñ ko nangooti loolu tax mu ne walaw tànn tànn dama donte rëccu na waxaale mu ne afxalu danaa jëf maanaam danaa julli li xaw fi mahalakin ngir ragal alkande loolu moom fay la sa yuxbalu defu ko nangu defu ko nangu walaaye lii du méngee it salaatuhu ju julleem nga su faddin borom yi nga neel li koy yekkoon ngir na ngir mu nekk ngir jëf jooju ñu ko def mën a nekk zaaji zaajiran di jàjji li limis li ay kemam ay moromam maanaam buñ demee ba koy bëgg a nag mu ne ah léegi nag bàyyi leen moom julli xaw woon ne affaire bi nii la sérieux buñ ma bàyyee léegi danaa julli boobaa it kenn du mën a accepté tàmmal lañ ko rey ba pare kenn du ko accepté loolu moo tax bala ñu koy rey toujours ñu koy mettantal ak di ko def yoo xam ne day tax mu xam ne ñiy caaxaanuñ bu ko reyee ba noppi it bu ñu bàyyi kilifa yi kilifa yi gën a ràññeeku ci dëkk bi kilifa yu mag yi di ko jullee ndax loolu dana day tax ñu ne rey nañ ko waaye diwoo ko jiite day tax nit ñi yaakaar ne daal loolu boo ko defee it bu la di siñ siñ siñ siñ diw jiitee mën naa tax daal nga texe loolu loolu it dañ koy dañ ko cay moytu moo tax du ko taxaw suñ diw du ko taxaw wala xabru bàmmeel ba it laa yut ma su defu ko marmaral waaye nag bu buñ ko reyee nag bàmmeelam kenn du ko maasale comme ni ni ñuy maasale bàmmeel yi yëfar yi waaye dañ ba li fi nekk yu sana mu def na ko jégénal def na ko yëkkati ni ab jégénu giléem di yëkkati ko nañ ko yëkkati noonu ñu baaxoo yëkkatee eh, bàmmeel yi waaw nu yëkkati koo nag baax na na yëkkati ko rek li tax ñu koy yëkkati mooy lenn hu nag moom muslimu muslimun ab jullit la xinda suyuqi fa sëriñ sa sëriñ sa kat nee nañ rey nañ ko waaye ab jullit la na sa yaxal na bisal xukmi ci bi la atte al njiit la alaxaw fii di ko jóg fii ka bokk ci askan aw fii xale yi nekk ci moom aw fii moomu rek dubaanu mu niiru yow fii ngërëmal saa borom mi nga xam ne moo leeral sama xol kon yaakaar naa mën nañoo taxawa ne fii waat tey eh, bu ñu ko résumé rek indi nañ lu am solo muy ñaareelu euh, xaaj bi téere bi ñetti xaaj la muy iman islam ihsan te indi nañ ñaareelu xaaj bi indi nañ ñaareelu xaaj bi ñett ñaareelu xaaj bi yi muy jàngale muy lislaam lislaam it juróomi xaaj xaajam yëpp andi nañ ko tudd nañ tur yi mooy zahad an laa ilaha illa wana muhammad rasulullah andi nañ ko faram na ko it ba mu jeex andi na it julli tàmbale ko faram fàcce bu jeexee dana indi koor dana indi asaka bu jeexee mu indi waat bu jeexee mu indi acc ci julli nag lam ci jiital mooy dafa wane rek ne julli moom bala ñu koy def da xam atte bi mu ne julli boo ko doon xool ci usulul fiq moom euh, ci fi ñuy jëlee ay dalil mooy alquran am nañu maaj moo xam ne adila yi wane ne julli farata ju mënta ñàkk la noonu lañ ko amee sunna noonu lañ ko borom xam-xam yëpp dëppoo moo tax ki nga xam ne da ko bañ a def moom dañ koy jàpp ne moom bu doon ab jullit la it Eh, génnewaat na ca boppam bu ñu ko reyee sax duñu ko jox atteb jullit li ñuy defal ab jullit lépp duñ ko ko def ndax moom nga xam ne ba ci donn sax ay doomam yi nekk ay jullit duñ ko mën a doon ndax ndax donnante du mën a am ci ñaari ñu bokkul diine eh, duñ mën a donnante ñaareelu masala bi nag ki nga xam ne moom nangu na ne julli na julli am na accepté na ko waaye da ko nanguwut a def kooku it atte ba mooy dañ koy rey ba la ñu koy rey nag danañ ko def lu lu bari lu koy xamal ne ne lii daal lu sérieux la ngir mu mën a deltu ginnaaw bu bañee bañ tàmbali koo rey mu bëgg rek kilewaat it boobaa nag kenn du ko nangu ndax dañuy jàpp ne ragalatul yàlla waaye loolu la ragal kooku nag moom bu ñu ko reyee ab jullit la moo tax atte jullit atte jullit yëpp ko koy def fii la suñu mm, bindu tey yamoon ñoo ngi jaajëfal bu baax ñëpp ci doon ko andite ci turu daarul maarif di jàngukaay bi nekk ci jumaa ji di jaajëfal mu muxaddamatul xidma yi koy taxawee di jaarale jaajëfal gi ci sëriñ Jili eh, mu jàll na suñ suñ ba ci suñ xaafiya mi kilifa gi eh, di ñaanal suñu kilifa gi jiite daarul maarif it suñ borom yàggal ko fi ci wéral ko si alxaaji Mbàkke Jaxate di siyaare ñëpp ak jéglu ñëpp wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallima wa sallama tasliman jërë ngeen jëf wajal binaa ya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi